jël tàppe. waaw. tur bi nan la. nga ne. cee. ah waaw. waaw man amoon lu ma bëggoon cee la wala cee rek la. waaw Moustapha cee. ah Tafa cee na nga def cee. maa ngi fi rek. waaw. alhamdulilah. waaw. man kat dama amoon dama dama bëggoon dama doon laajte ba xam lan mooy indi koor. ah bu doon jotee kay sa koor dog sa koor dañ. ah def naa loolu yëpp mais koor gi dañul de. lan mooy dund koor. ah boo waxee jigéen naka su dul noonu war a nga def naka su dul noonu war a nga wàcc arafu koor kay mooy sa koor jeex na loolu jar ta laaj. def naa loolu yëpp mais koor gi taxul mu dañ. ah yow ban heure ngay xëdd. man comme amoon naa xëdd huit suba sax mais koor gi taxul mu dañ. waa yow ban koor la yow yow xanaa wooroo wara ban woor ngay wax. koor xam koor koor. waaw koor kay ci lañ nekk ni ci waxtaanu koor ci yor-yoru koor koor. ban yi koor yi nga ne koor yi nekk fan. yi nekk si tànk tànk. sa tànk yi ñoo koor. waaw nga may laaj ndax am nga koor. waaw noo sant. waaw. Seck. yow dama ne Cee wari nga wariloo nga képp ku sant sekk ku sawe ku sant sekk ku xam ku sant sekk nga dëkk ku sant sekk xam ku sant sekk dend ku sant sekk yooyu yëpp ministère de l'intérieur pate sekk wari na ak képp ku sant sekk ku sawe ak ñoom ku ci am doom ku ci am raq ku ci am frère ku ci am sœur ku ci waaj a takkante ak ku sant sekk ndax xam nga ne koor bu nekk ci tànk lan set moo koy dagg war a paaka waaye man loolu munu ma ci dara ñu naan ay waxtaanu koor ci yor yoru koor samay koor laa bëgg dañ yaa salte yaa xeeñ yaa narjo jo waro bëgg rasulilaay ci sama xol bi maa bëgg rasulilaay ci sama xol bi yaa rasulilaay yàllaay ki ko mu rafet loo rafet ci ko matalay teggin yaa rasulallah yee yaay gën gi yoneen njiitu njiit yee imam bu mujj ñu ci am ca contentement di ziar bu baax ki nga xam ne mooy Mor Diaw seeri Binta nekk ca Géejawaay waaye Lébu Thiam nekk ca Warax de la part de Lari ñu nuyu tamit bëgg fàllu chez Amaès Lour Fall de la part de Toc moo koy nuyu waaye Lebu Thiam nekk ca Warax kooku laari moo koy nuyu moom Mor Diaw Séré Binta ca Géejawaay waaye bëgg fàllu Cheikh Amaès Lour de di xaritu Toc nekk fii ingénieur de son fii nu koy nuyu waaye di ziar tamit Alioune Niang dëkk ca Cambérène ñu koy nuyu tey nag maa ngi desanteeg ki nga xam ne mooy Ndiaga di responsable technique bi. nee na ma xanaa da nga fàtte ne sama soxna pël la te mu nga dëkk Cambérène bi nga koy wax démb da nga wariloo waa ma ne ko nag ah sa soxna mu nekk pël du tee tamit bu ñuy wariloo dañuy wariloo yëpp yow kay yaa wari yaag moom ak say doom ak ñi la ak ñi ngay liggéeyal kon duñ ko mën a teggi su ko defee bu fekkee mën naa albatiku ah njaga mel ni laay wax njaga Ndour bu nekkee seen patron nag du tee buñ ko wariloo ngeen wari <laughs> lekkee sax moom dafay su ko defee kii dafa yónnee laaj ci Facebook bi nee na dafa sew ruuc ni yax nee nga jël yax dagg ko ci digg bi mu doon cure-dent nee na nga jël cure-dent xaraat ko mu nekk bant bale nee na nga jëlaat bant bale xaraat ko mu nekk ficelle nga jëlaat ficelle xaraat ko mu ne mu nekk loo xam ne kon wëñ nee na noonu la toll te wax dëgg yàlla dafa bëgg yàlla bëgg diina yàlla nee na ndax moom war naa woor war a war ta woor ci jëmm ju toll noonu <laughs> ma ne ko bu ci amee ñaari fan rek doy na ndax ñetteelu fan bi damay ragal mu romb du nuyoo kenn du ko fay ndax duñ ko gis <laughs> ñi pataa bu dog jotee nañu prolongé ki ma leen di xamal exemple bi ma leen wax léegi nii ci li ma leen wax ci ku sew ki su ma ko doon jëmbal ci tele bi benn jëmm rek laay gis ne moo tollu noonu mooy boo leen seetaanee yeewu leen kii def mi ni wan na gi lekk gi Marie Christine gis ngeen nu mu tuutee noonu nga xar ko juróom ñaari yoon nag kooku boo ko naree woorloo 30 jours rey nga ko mu dee ndax Marie Christine bii nag ñaari fan bu ko toogee lekkul rek do dana la romb naan la Kouthia doo xam fu mu lay woowee ndax jëmm ji doo ko gis ndax tuuti am na ku nekk ci ligne bi allo. allo yaa Oustaz. na nga def. wuyu ma. yaa Oustaz. wuyu ma. waaw mën a dolli sarxol la bi nga def léegi dolli waat ko. yaa. ma baaje. yaa dolli waatal. man la sa présidente daayira soppay abu bilal bu Tiwaawan. hey na def na def. ah Sambe nii la ngeen def. ayow yaa oustaz démb toj nga fi. Kati. yaa oustaz tey Tiwaawan ordre du jour la. waaw bàyyi li ngay wax. baraada beeg taas bi. waaw. non yow sa xam-xam jéggi na day ba. jërëjëf jërëjëf xam nga Tiwaawan. waaw dafa fa xarit. Mm-hmm. ku ci ne sëñ Mbaye Sy Mansour. ku yàlla baaxal. dëgg la sama xarita. Ah! déedéet <laughs> waaw waaw waaw waaw. waaye léegi man yow laa gëm. wéy ma. baaje tuuti. yaa ngi gis. maa ngi lay gis nga manto bi. gis naa ko ak kol bi ni ma ko tegee ci kaw. gis naa ko gis nga maa ngi baaje. waaw oustaz bi baaje. ah oustaz. <laughs> laajal. waaw oustaz yow. waaw. man man moom dama la gëm moom. nga de. man moom yow laa gëm moom. dëgg la de. waaw oustaz man damaa bëggoon nga def beneen kéemtaan. nga ne. man damaa bëggoon nga def beneen kéemtaan. waaw kéemtaan nag yombul. dañ koy dañ koy xëcc rek waaye yombul loo bëgg. ndax man wóolu naa la ci. ah. man wóolu naa la ci kéemtaan bi. waaw waaw foofu loo leen manqué yéen. ñun oustaz xam nga fii Tiwaawan jën dafay manqué. jën. waaw. jën de jën waaw. yow te balaa koor gi balaa ngay dog foog nga lekk ay ceebu jën yu neex yu toog. waaw mais te ñun fii jën taa ñu koy am dañuy sonn. boo namee jën demal mbuur. ah waaye yow oustaz yow ma defal kéemtaan boobu. ma waaw ustaas bi xam nga mun ustaas bi moom mun naa indi jën waaye mënut a xëcc géej ba ba ci ba Tiwaawan wax dëgg yàlla kooku moom xalif général Tijaani sax da ko dul nangu boobaa dina la ma <laughs> xanaa dañuy puus côté bi puus côté bi def fa géej gi ca terrain ba <laughs> loolu kay mënut a soxna si seetal leneen jën dafa diis waaw yaa waaw lii comme que jën dafa diis waaw dafay ginnaaw dafay cher nag cher fi xar cher ba damaa bëggoon nga def kéemtaan boo xam ne léegi loolu lépp a yomb xaar day yomb xar day yomb nag day yomb yàpp bari fi bés ka ni tey soxna si waaw yow bés ka ni tey waaw yow Kati Samb waaw daayira alaaji Abu Bilal ca Tiwaawan waaw fexe ba jël ay ginaar dugal ko ci biir Tiwaawan ah yow sax boo ko defee ma kontaan képp kuy jaay ginaar Tiwaawan boo ko jaayee lu passé ñaar téeméer amoo koor waaw wori kuy jaay kilo xar yàpp xar ci waawan bu paasee ñaar téeméer amoo koor. wari na. débiteurs yi nañu commencé di lakke di joxe addiya borom bés bi ak borom kër gi ak borom dëkk bi ndax xam nga ne Sy Mansour xam nga ne foofu ca Tiwaawan wax dëgg yàlla dara waru faa seer. dëgg la léegi xam nga ban kéemtaan laay def. ana yarkatu ginaar yi nekk Tiwaawan bàyyi leen ginaar yi ñu dem ana yarkatu xar yi nekk Tiwaawan bàyyi leen xar yi dem nag yi xar yi bëy yi gëlëm yi wa zimaanu wasaalu kal wuuli al tariqal wal nekk ci Ouest Foire ñi ma caam taalibe El Hadj Abou la ma ngay daanu leer moom ñu koy nuyu ñi ma caam di ko xamal ne kontaan nañu am na ku nekk ci ligne bi kooku. salaamaaleykum. maaleykum salaam. eh Balla Samb Yacine ku mënu baaw lu yàq yow kay noonu. waaw kooku. El ah, Hadj Abou Bilal man El Hadj Samb loolu la jàkkaay noonu. eh yow yaa dugg ñaari fan yëpp di ma xas lu ne nga ma koy yàq yow pël bi. waaye jamono kay loolu tuub naa ko gannaaw si tey kay noonu. Ah, nga ko. laay bàyyi lépp kay ma wax la li ma gént kay noonu ndekete yow kay yaa raw bataar buut yaa raw baar buut ndax dama ma gént leen <laughs> léegi ma gént bataar buut toog ci suuf. baar buut toog ci suuf alkata mi sax dafa toog ci suuf kaw kay noonu. wallaay wallaay wallaay Samba man jëloon naa ku baax. kon Sénégal umpale nañu la kay noonu ala jaabo bi laal kay noonu la man gannaaw si tey kay jot naa la suma kay. très bien jërëjëf. loo def ci yow la ma ne eh? lu tax ñaari fan yëpp boo duggee di ma xas di ma toroxal di ma wax lu nekk yow. waaye tam dafa am say noon yoo xamante ne ñoo duggoon suma kenn waaye dem ci guddi bi ma tëdd lu ma gis kay noonu yéen na ma tor damaa jom ni kay noonu gaawal nga defar ma gaaw. ana say nag dafa réer waral la jaaxal. yóbbu nañu lépp kay moom moo tax mu génn jaada suñu nag wa dem na mbaama dem na kar yet dem na kay moom suñu kër saa mu dafa commencé woon a lakk sapeur pompier ñett gaar jor ñoo gaaw ñëw kay defar ko taxawal eh? talalal sa talal naa kay tegal yet bi nga xam ne moom nga yor ndax xam naa ne sàmmkat nga tegal yet bi teg naa yaa ngi sol caaya bu ñuul dëgg la war a du dëgg moom kay war ñuul ku kay laa sol yaa ngi sol silegment bu weex tàll dëgg la war a du dëgg moom kay yaa ngi ci biir kay noonu kay. dama ne tàllalal sa loxo. wàccal ci suuf. wàcc naa suuf kay. bàyyil jooy yi. noppi naa. waxal wa ziimaanu. wa ziimaanu kay. <laughs> ay ful bi dina waray nel wa zaamaanu. wa zaamaanu kay. nel wa ziimu zaamu wa ziimu zaamaanu. kay moom nag ñëw nañ. nga. E, jommi naa kay. eh. eh su kontaan na. sàmmal na ñëpp ñu ñëw ñu ñëw Dakar. moom kay bopp yow yow sax mun la kéemaan googu bu la nekkee mën ngaa def ñu naaw ca asamaan si jaar ñëw koy moom kay nee naa la def naa la suba lépp kay moom. eh. moom kay. eh. wuy naa la. mais ngeen loolu ko defee nag dañuy jublu ci li nga xam ne. mooy kéemtaan ki kii pël la kiraama yi pël bii moo duggoon démb ba ma wariloo pël yëpp kon pël boo xam ne yaa ngi Sénégal ak li ko wër nga sant Ba nga sant Sow nga sant Ka nga sant Baro nga sant Diallo nga sant loo munti sant seen koor defar naa na ko yéen ñëpp seen koor baax na waaye képp kuy séeréer wari nga ndax xam nga ne kii nee na day sàmme ay nagam indil ma ko kon bës ni tey xaal pulaar yi ñoom ñooy buuru séeréer yi kuy sant Diouf Fay ku sant eh, eh, eh, Sall wara nga sant noo munti sant rek tey séeréer wari nga léegi nag dañuy ranger lii su ko defee lépp leer Pierre da may indil ma defal leen léegi kiraama léegi bu leen jaaxal kiraama laa leen di defal ci ñaar danaa fexe ba. sénégalais yi ren ginaar du manqué xam naa Pape Ngom moom dara ma mere ndax bu dee man maay concurrent tey mu xam ne dana ko daaneel ku soxla ginaar na nga ñëw ci man ma génn la ginaar te doo ko jënd du arrangé waa sédiment waaye ba tey dama ne ñaareel bi mooy danaa toog fi ma toog di naaw ci kaw asamaan si kiraama may ma crib te ñëw ci kiraama kiraama wa kiraama